quraanay li may bégal loolu mooy yàlla lam dogal suma aaye ci moom fegal dama koy tayi xamti ko alquran moom du wax ju ndaw ku ko gëm dëgg bàyyi jaw ku mu yéegal nga jam ca kaw nanu koy jàng bëgg ko la maison du coran demolon tay ci na ba don gestu nak ci jar jar yi nit ku màgg ci alquran ku fonkon alquran ko fonkon xam-xam di oustaz Alioune assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki dulle di ñu ngi len di nuyu nuyoob l'islam da moy ñaan yalla mu wacc jàmmam ci yeen ak yërmandeem ak i wàcce ko ci ñun ak mboolem bi ci kaw suuf. Oustaz Alioune Guèye nag mi ngi fekk baax fii ci Thiénaba ci dëkk bii la juddoo ci famille boo xam ne bii ñu amoon xam-xam lañ ñu ñu joxoon cër ci dëkk bii di canaba Oustaz Alioune Guèye buñ ko déportelee canaba gii la dëkkoon fi la ganee àdduna ci ñaari wayjur bu góor bi tudd Serigne Tafsir Mor Guèye ju jigéen ji tudd Soxna Ndiémé Diop. soxna Roqaye Diop waaye gën a siiwee ci njéeme eh, ñaari famille yooyu mu jugee di famille Ngéyeen ak famille Njóobin fii ci Canaba ay famille reen lañ fi ay cosaan lañ fi ci wàllu jàng ak jàngale ak xam-xam eh, ci biir eh, ñaari famille yooyu la gënee àdduna yàlla dogal nag bàyyam génn adduna ci age boo xamante ni bu néew la ci moom ndax bi baayam di génn àdduna sëñ Mor Gueye mi ngi ko fekk ci mu am 11 Euh, tàbbi ci loxol sëñ a Seck euh, xalifa bi fi nekkoon ci jamono jooju di deuxième xalifa maam Amary Ndak ci Canaba ginnaaw maam Talla Seck sëñ Ibrahima Seck mooy ñaareel ko fi wutu euh, maam Ahmed Ndak mu tàbb ci loxoom sëñ Ibrahima tamit def ko ni njabootu boppam ci orienté leen yóbbu leen ci daara jàngal leen ñu jàng tegu ci yoon. ay xaritam ay soxnaam ba ci ay ndongoom ñoom ñëpp ñoo maase ci benn kàddu bi oustaz Alioune Guèye mbaaxam foo ko nattoon weesu na ko. man nag bu ma doon wax sama diggante ak moom dama naan man euh, sama diggante ak moom mën naa ko mën naa ko misaale ci ci ndimba ndima tusi tusi ni nga mënta taxale biir bi ak bitti bi noonu la ñu meloon maak moom bi ñuy dund noonu lañu mel yàlla def na bi mu bi may jiitu sitam daanaka mën naa wax ne sama kër la jógee rek presque dem àllaaxira médecin yi fii lañ ko daan fekk ba ni nga xamee ne état am laajoon na ñu jële ko fi toxal ko clinique ba ni ko fi yàlla euh, moome kon daal ñun suñu suñu diggante te itam loolu du lu ma jaglooloon Alioune loolu jikkoom la ñëpp la baaxoon ci ñoom ñëpp ngay ngay ngay borom alal ngay boroom xam-xam ngay borom maxaama nga ñàkk ko moom moom jàpp na ne kenn ku ne mën na jaamu ci yow yàlla. góor gi macha allah ñu ngi doon dund ak moom comme dund yonente yonente bi sallallahu alayhi wa daan dundeek ay soxnaam macha allah moom moo ñu yar ndax bu ñuy tàbbi si ay loxoom boobu xale yi ndaw lañ boobu 18 rek lañ am ñëw si loxoom moo ñu egg di suñu jàng lépp lu ñu xam si wàllu diine moom moo ñu ko xamal. bëggoon ñu lool nag yërëmoon ñu lool wax dëgg yàlla. daal ñu jaarale si yoon wi si yoon siraatal mustaqim man Oustaz Alioune Gueye bu ma neexee ni mooy sama baay ginaaw sama baay ndax fi mu jaar ak man la te foofu sax laay njëkkee man bi may ñëw ci ay loxoom am naa bac plus 1 euh, benn année fac droit mais boobu fekk na mënu ma lire arabe j'avais 24 bi may ci ay loxoom amoon naa ñaar fukki at ak ñeent mënuma woon a lire arabe ferme woon ijji man ci bobu situation ci la ñëw ci ay loxom man ak mom nak ñoo dëkk ci ay mam ba léegi damay faral di wax sax ni dina ma neex lool ci ku mel nonu ñu ni sekh nga ak mom li yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam ak banu saad ibnu bakr ndax fa la nampe ji won kon relation nampalante doxna sama diggante ak fami oustaz aline Gueye mo tax boko jaaré fofu mom sama mam lay doon ci walu këram it ñu daan yoree këram allah dara wax dëgg yalla daw ñu nangu ñu def dara ci kër gi dara dara dara dara bo demaan marsin dubbi xorom bo manké xorom sax ñew ne ko saa aw xorom bu dindi yàlla demal sa poche ba mom sax dula jox danaan ngi non seen poche ngi non daf ñu daan sa poche ba ngir rool bu ñu ma sha allah ñu dund ak mom wax dëgg yalla bu bu neex boo xamné ne dëgg yàlla dem bu téla dem bàyyi ñu fi rek mo ñu metti sha allah Oustaz Alioune Gueye ku fonkoon xam-xam la ndax dafa laxasuwaay woon dem bërëb yu bari ci réew mi ngir sàkku fa xam-xam. daanaka moom nit la koo xam ne ci Sénégal fépp la nekkoon ndakaaru la la la la dafa la way juróom bu nekkoon waaye itam comme Ceneba moo doon seen cosaan daawul jóg cene ba ci wàllu njàng nag njàngam li ci ëpp mu ngi ko jàngee eh, diggante Gosaas ak Kaolack. ak ndar ak nag ndaxaaru ci boppam euh, ci euh, ku ñu wax sëñ Paate Seck ndar moom daara yi gën a siiw ci ndar yëpp def na ko jànge na kawlax jànge na euh, ndakaaru ci magam sëñ Jàmme Guèye kawlax ba mu fay jànge mi ngi nekkoon ak xalif général bu Thiénaba bi génn àdduna lu yàggul dara di sëñ Cheikh Tidiane Seck moo ko dal moo ko jàngal alquran ba mu noppi ci moom alquran dem ànd ak moom dali jàng xam-xam waye juk bi fi jógee jangé na saint li Ndar di won dekk xam-xam ci jamono yoyu ay euh, geewi xam-xam nekkon fa mu dem yok fam jangam jàng na tamit teungej barab yoyu ma lim barab yi nga xamanteni ni na fa ginnaw bi dalé ci magam sëñ Jamme Gueye jangé ji alquran Kawla euh, Kawlax jógee fa dalé fa xam-xam agalé nak ci gox yooyu nga xamni mom la tudd bi yalla dogalé tamit mu dem dem ba tollu ci ben ahj bi yalla dogalé xam-xam bi ñan jang ci rew mi ci walu euh, nahwu ci walu fiqh ci walu euh, aruud ak yu ni demee yàlla dogal téréñ fi daan jang ci rew mi mu jang ko fi ñe ko lañ daan man ci bind ak way ak yu ni demee cër am lu ko cëral ci la sobu nak ci jamono joju ngir samp kër yaxantu genn rew mi dem Côte d'Ivoire euh, yaxantu waye mu delu ci wat ci rew mi ngir ni li gëna nek nekk bëgg-bëggam mooy jàngale diine ji xam mo ci dëkk iqra jàngal bu yàlla waxoon ni ko jullil wala wooral wala defal asaka wala nangam ci xel day laajaan mu ni ko nu ma koy defee mu door ko yóbbuwaat ca daara ja ni ko jàng ko kon jàngal ma war a jëkk waaw lu ne rek xam nga moo war a jëkk def ka al ilmu qabla al qawli wal amal oustaz ku géeju woon la ci wàllu xam-xam loolu taxoon na mënoon na jëflante ak ñépp léppam daal ci xam-xam la daan tegu. Oustaz Alioune Guèye mooy koo xam ne ñëpp la mënoon jëflanteel boo dee nitu tariixa nga dina jëflante yow ndax mën naa wax ne sax boo dee nitu tariixa dina ci xam loo ci xamul woon dina ci am ay jaar-jaar yoo xam ne jaaruloo ko woon waaye itam xam gi mu xam ne booy tuddoo lislaam ñaari arme mooy sa moom nga yore essentiellement mooy xikma ak ma mawidal xasana ginnaaw boo amee xam-xam ni nga koy joxe loolu dafa am solo moo taxoon mu juboo woon ak ak ak mag ñi euh, exemple bi mu ci jëkk joxe li ñuy tudde tey nii ay séminaire rek ay ay colonie de vacances ak yooyu mën naa wax ne ci temps moderne Oustaz Alioune Guèye moo ko fi jëkk def ci ba bi ma ñëwee fii ba di jàng ci benn waay maa ngi koy ñaanal ku ñuy wax daaw dafay sama benn xarit di góor a maane mbubb moo fa fekk ni ma Mamor root ca teen ba ki lay jàngale ci oustaz lay jàngale man ko mais man miinu ma oustaz mun du ci dara keroog bi ma ñëwee ci oustaz Alioune Guèye dugg toog dafa ma laaj ni ma ndax mën nga faatiha ma ne ko waaw mun ma taril ma ne bisimi mun ma taxawal yow munoo faatiha kenn du wax bisimi bismi la ñuy wax kon yow da dal ma ko bismillah kon dugg naa ci contact man ak oustaz ci wàllu jàng wax naa la booba amoon naa ñaar fukki at ak ñeent bin ñëwee man ak oustaz ñuy dal daf ma wàcce ba ba ba daanaka dernier niveau bi mooy damaa war a jàng liir kon ci moom ma nekk ca mais mu def koo njàngale mi ku mën a jàngale day boole di ma jàngal liir ak it di fexe li nga xam ne samay farata la ma koy xam kon daanaka damay wax ne diine jii man lu ma ci am lu nekk ginnaaw yàlla mi ma koy sante mais oustaz Alioune Gueye dama dama jàpp lu mu am ci diina ji rek moom bosam day day versé wu ci kontam ndax ki dem ba âge vingt quatre ans français rek la jàng ca du woon ci nelaar nag yaa ngi dégg ñëw ci moom dem ba léegi bu jaxasoo ak société dañ koy laaj ni koy yow ndax jàng français kon déjà oustaz aline Gueye moo convertir sama français en arabe da nga daan tëdd ba nelaw mu tëdd xelam dem si ne jàngoo mu yeera ne la jóor jàng jàngoo nga jóg boo jàngee mokkaloo mu fi ne la ne la toogal togal nga jang té bobu ñu ngi yor suñu jabot ñu tok euh, jang ba moko ak lu mu gudd gudd tari doo ko dem tëddi wax dëgg yàlla tette nañu bu baax si suñu walu jaamu yalla wax deug yalla té té yitt daana kaf ak ñun kaf bu neex daana animé fi ñuy ré ma sha allah limi taré ci si wàllu jaamu yàlla gi bu si jógee non lañuy kafalé te bëggul woon ku ko meree te saa ñu soowee rek si si loolu lañu soowee saa ñu meree rek loolu lañu meree danañ wax naan ki ma gën a bëgg mooy ki gën a sawar si wàllu jaamu yàlla moom laa gën a bëgg moom daal jaamu yàlla ko ñoroon daal. Oustaz Alioune Guèye jàngalekat bu mag la woon muy ci wàllu xam-xamu téere yi wala ci wàllu àddina moom daal dundam yépp jàngale la. ñaari ndigal yooyu jàng leen ak ragal leen yàlla. moom moo tënk lislaam addinaam yëpp jàng la moom daal ku bugg a jubóog moom nekkal soxna nekkal doom nekkal jarbaat na la njàng yitteel bu la jàng bu boo jàngatul daanaka euh, amul ak yow torop affaire lu bokkul ak njàngam njàng mi itam ci téere yooyu itam day jàngale ci ci action day jàngale ci ci ci jëf këram mën ngaa wax ne dangay nekk kilifa gu mag boo dee jigéen mën nga jóge sa kër de sol lu la neex waaye boo jubee kër Oustaz Alioune Gueye boo nekkee Oustaz Alioune Gueye ngay jëm rek dinga nga di nga sol col gu gu yiw ba ñu mën la ba ñu mën a xàmmee yow mi jigéenu euh, lis nga lislaam la Oustaz boo dugg see këram pédagogue la benn daf lay njëkk a ñemeloo boppam dëddë day kaf ak yow ba pare nag tënkal ñu benn taalif bu ndaw di la soñ ci jàng dafa daan wax naan ku ko sàlloo dim kaang ku ko sàlloo dim kaang jàng nafar tari ku ko sàlloo dim kaang mooy ku jàppoo di jàng si li nga jàng nga koy nafar nga koy réviser bu tari jotee nga tari ko nee ko kooku am kaang lay nekk dina nekk borom xam-xam waaye nee na ku ko sàlloo doom kaang ku ko sàlloo dum kaang jëllal nelaw tukki waa da doon jàng si kat ana waa tey dafa jëlal ñëwul tey waaj kat fi lay jànge anamu tey ma ngay nelaw waa ji kat fi lay jànge anamu tey dafa tukki nee na ñett yooyu ku ko jàppoo doo mas a nekk boroom xam-xam dundam yépp ci ci joxe xam-xam la ko la ko la defe wax naa la si waxtaan école ba fa gënoon siiw kenn du ko fàtte ba léegi moo ko fa taxawal waaye itam feneen ci ci ci Dakar fi ñuy wax tey euh, Kër Massar te bu jëkkoon ñu daan ko wax banqaas ba mu fay ubbi école booba daanaka foofu ab àll la woon waaye moom njàngale mi rek moo ko mës a moo ko mës a moo ko yitteel dafa nekk nit koo xamante ni bi boo yegsee da won ni yow li nga amal affaire moo bari parce que lii ak say loxo ci ay jàmbaar yoo xam sacrifice lañ ko def moom ak si yow muy saxaaba yi ci la ñëwee moo tax dafa tegoon benn système fii ci Thiénaba day jàngale altine talaata àllarba alxamis majalis fee ca kër ga ajuma da koo réservé woon pour di wër kër yi canaba di leen defal ziarat ci chaque vendredi day commencé dëkk bi kër par kër fi ma yemoon vendredi bi di ñëw fa lay fa lay bi mu tàmbalee daara ji foofu canaba ba bi muy génn adduna 11 jours fukki fan benn yi sës ci génnam àdduna la jàngalewul ci canaba bu dul loolu fii ak ngi ci dëkk bi tukkiwul ñeenti fan yi may waajalim wala fan yi may waajalim di altine talaata ba alxamis sa ku ñëwaan ci kër ga di nga fekk mi ngi tok di jangalé aljuma da jéglé lon di ziar ci biir dëkk bi samedi ak dimanche liggéeyub daaw bi ci conférence yeeg yenen programme yi genn mom la ko lon kon depuis 73 bi ko seigne Ibrahima wowe pour mu déllu ci dëkk bi mu jox ko daara ba 2011 bi bi genn aduna jang ak jangalé rek la def ba nonu mu genn aduna bi ci dess mu naan la bul nekk su dëkk kese yow l'international nga mal affaire. motax samedi ak dimanche da koo réservé pour conférence ci biti conférence ci biti région Sénégal yépp oustad dem na fa ba paré yalla wërsegal na nak mu def 24 pays yo xamanteni bi lam fa doon def moy def jamono joju yalla ko bolé won ak euh, ño xam ne doon génn xuruj ji tasaare diine ci ca pays réew yi mu def tay France gi ci la bok kon mom yalla wërsegal nako ko mu taxaw ci France jotli euh daaw bi Oustaz Alioune Guèye sos na ay daara yu bari moom daal royuwaay la woon ci tasaare xam-xam fii ci réew mi dundam nag taxu ko woon a yomb lool Oustaz daana jànkonteeg ay jafe-jafe wante situation bu mu mënti nekk rek ndimbalal yàlla fekk na ko ci. amoon na ay jafe-jafe ci bi mu nekkee ci école publique yi boole ko ak école am boobu amoon na ay jaxase yu ci amoon ba euh, am ñu autorité am ñu demoon ci. ci inspection euh, ci ci ci autorité euh, scolaire euh, yi nekkoon Sénégal ñu nekkoon Thiès pour ñu affecté ko pour ñu pour ñu jëlee ko fi ci lañ ko fi affecté woon Kolda ba mu fa nekkee bàyyi njabootam kese muy ay jigéen ak xale yu ndaw booba ñoom Mouhamed ay xale lañu bu bàyyi leen ci kër gi ba benn wëllëreem sax dafa dafa am yërmande ci xale yi ak ci njaboot gi ba jëndal ko kër fi cees ne comme léegi ay jafe-jafe moo taxoon mu jógee Thiénaba dem dem Kolda na xale nañ toxu si fii waaye njaboot gi ci seen bopp jigéen ci seen bopp ñoo ne jarul ñuy toxu même bu ñu lu ñu mën di def fii nañ nekk fii rek ba ba kër googu mus mujj mujj fa masa teg tànkam waaw pour wane jafe-jafe mënul ñàkk waaye Oustaz Alioune Guèye ku dugg ak moom ci ay jafe-jafe itam da ngay mujj rek ne ay la yéwén da ngay mujj rek ne ay la yéwén eh, kii bu dee luñ ko doon jiiñ ci sofan defu ko bu delu ko don jiñ ci wax waxu ko donc motax ye fi mujjuna delu ci wat ala normal ama mu mu mu mu fi joge ba digganteem mak dekk ba gëna tax ratax ratax lool ratax lool wax deug yalla man bokku na ci ko don awu ci daara ji boba ñu ngi ko yóbbu mu sori lool man daan baye xalé ba kérok mi am ko jangale wa li xamas ma di ko ma diko wax luma daan naa ko woo téléphone sax di ko laaj baat bii lu muy firi yooyu noonu mu dañ kii wax dëgg yàlla ni ñu mel tey moom la wax dëgg yàlla yombul dund gi moom moo ànd ak i tànk-tànk bal mooy xarat bi tax yàlla bind doomu aadama sax mooy lu mu nekk lu nekk ay natt di ko ca fekk ak jafe-jafe inna xalaqna saada insana min nutfatin ni nabtalihi la borom bi subhanahu wa taala wax kon julit bi moom wala nit ki ak wàll gu mën a nekk rek faaw moo am yim cee jànkonteel yoo xam ni góor góorlu ba jéggi yooyu mooy wane nag ak ak eh, góor gi bu njàngatee dundam dañuy gis ne daa xuus ci yu bari ba daara ji ni ko taxawee daa xuus. dafa am benn tabaski Oustaz Alioune Gueye amul xaru tabaski am ku ñëw di ko ñaan xaru tabaski dafa fekk Oustaz Alioune Gueye ñaar téeméer kese la la yilif 1000 francs la yilif mu jël 1000 francs yi jox ko waa kooku ne oustaz yow da nga may ñaawal ma lay ñaan xarum tabaski may jox 1000 francs mu ne ko yàlla xam lii rek laa am bu ma amoon lu ëpp lii jox la amul problème parce que jàng naa li li sama diine li ma wax waaye nee na dem na ba ma ñeewantal sama xale yi nag ci bu kër yëpp waree na ci seen fet ci xale du ko am nee na ma xam ni jafe lu jafe fii ci kaw suuf la am mais amul fii ci kaw xam nga yàlla ngi ci kaw amul fii nee ma daal dem jàpp julli ñaari rakka di ñaan yàlla xar mi ma bëgg am xar mi ma bëgg ni mu mel ni mu war a mel Oustaz ne maa ngi koy imagine nee na ci biir ñaan gi sama soxna ñëw woo ma ne ko Oustaz kaay woy ci bunt bi nee na bi mu ñëwee alaaji sàngoone mbay yàlla na ko yàlla yërëm ci jégal ko fan yi passé la génn àddina moo ñëw indil ko xar moo xamante ne bii bi Oustaz gisee xar mi dafa daanu xam Oustaz dana am ay àll dafa gis xar mi li mu doon imaginer ci bët yi bëjjën yi melokaan wi xar mi bàyyiwul dara kon bi muy dugg ci néeg bi amuloon fu mu amee xar waaye toog na nag mu gis ni sa jot la war a defal boromam pour rukkool ko ñaan ko soxla soxlaam yàlla tàggat jaam boo xam ne xar mi oustaz soxla ni mu mel oustaz nee na xar mi dafa damaa jàkkaar rek mu ma daanu oustaz Alioune Gueye li mu jàngal ci réew mi bëri na fii ci ba ak feneen néew na daara booy dem te doo fa fekk ñoo xam ni ci daaram la ñu bàyyeekoo. résultat wu daaraam moom mun naa wax ne <clears throat> njabootam ci lañ bokk donte woon xam nga borom kilifa yu baree baree bari eh, dañuy taamu jël seen njaboot joxe ko feneen moo tax ñi dem fas Touré ñii dem feneen jàng fa donte woon moom moom booy judd rek moom di nga commencé di nga jàng bu ko yàlla wërsëgalee léegi daanaka doom yu góor yëpp presque mokkal alxuraan. lu war a fukk ak ñett ci doomam mokkal nañu alxuraan loolu nangu bu mu leen nangu woon a muñ ñu dem jàngi la waaye ci biir dëkk ba moom euh, lam fa lam fa lam fa lam fa jur ci ci ay résultat mooy boo demoon cene ba léegi di fa gis ay daar yu baree bare bare daar yooyu nga fay gis pour nga gis ci koo xam ne génnewul ci daara Oustaz Alioune Guèye dina jafe waaw waaye du cene ba rek du cene ba wax naa la léegi daara jamono si ma xotaan ña fa ña fa ña fa génn woon ci ay góor ak jigéen ni ñu nekkee mujj nekk ay cadre nekk ci ñuy jax ñuy tasaare njàngalam lislaam ci senegal macha allah bari nañu. ba itam mën naa wax ne euh, ku ku ku fa ku li li commencé ci ñi am ñi nga xam ne ñu ngi juddu xëy na ay soixante jëm kaw néew na ci ku ci Oustaz Alioune Guèye jàngalul. maanaam lu jiitu sa sant sax sëriñ sa fa nekk léegi ñu baree bare jaar nañ ci daaray Oustaz Alioune Gueye waaw wàccee kenn yëpp ci bari jaar nañ ci daaraam daaraam jooju alhamdulilah rabbil alamin mooy continuer nii tey ba ay doomam ba ay doomam yor ko may bégal loolu mooy yàlla lam dogal suma aaye ci moom fegal dama koy tayi xamti ko alquran moom du wax ju ndaw ku ko gëm dëgg. daara ji nag oustaz Alioune Guèye ba mu ko xalaatee yàgg na lool wante daf ko mës a gëm. sama baay ci daara la mës nekk jàng jàngale daara yam jànge ak yim jàngale nag xaw naa wute forme ak daara ci ni mu nekk jamono ji maanaam li ñu tuddee système internat ànd ak ni daara moom jamono ju nekk internat la woon mën naa am da woon internat joo xam ne. donc parents élèves yi daaw ñu fay dongo yi daan bay ak a di dundee waaye teewul dongo yi ci biir daara ji lañ dëkkoon donc bu dee dongo yu dëkk ci biir daara ji mooy internat daara moom daa ma si nekk internat eh, démb ba tey waaye nag système bii nga xamante nii sëliñ daara bi day toog parents yi di joxe dara par weer ñu nekk ak eh, xale yi ci daara ji 24 sur 24 di leen toppatoo di leen jàng di leen jàngale ma ne système daara melul woon noonu jamono jooju ba tax na. Eh, bi mu demee ba mu mel noonu nag ak njabootam tamit jaar ci gog ndax mi ngi doon jàngale ci kër ga wax naa la effectivement sax amoon na fa ak jaboot gu interné woon ci daara ji eh, ca kër ga eh, daa ci ay année soixante maanaam quatre vingt soixante dix neuf quatre vingt ba jàpp quatre vingt deux ba quatre am naa ay dongoy interné woon ci biir kër gi di jàng ànd ak ne système bi mu leen doon jàngalee mooy xëy jàng alquran bu ngoonee ñu gontu jàng ay xam-xami diine noonu la nekkee woon ak ñoom biñ ne ba xeetu internat yi xew dongay di internet ci daara ji waajur di am lu muy joxe daara ji ci njëkk euh, ji ci njëkk organiser lu mel noonu ci réew mi mooy daara Fass Touré ci sunu xam-xam ginnaaw bi ñu bare bare toppandoo ko ci ci système boobu mu jël ak njabootam dugal ci daara yooyu ndax it système daara yooyu moo gën a gaaw ci mokkal alquran ci ki nga xamante ni day jàng alkuraan di ko booleeg xam-xam wala kiy jàng di ko booleeg yelwaan wala bay dafa am bis mënuñu na ngeen ma ñaanal ci projet daara joo xamante ne bii ay millions la te ay millions yu bari ma ni waaw góor gi li muy wax ni yow koo xam ñun ñu la jigee xam moom yàlla ko mayoon euh, sac ñi ko jigewul dañoo defee ci ay millions la toog alors que ñun ñi ko jege xam nañ ni yenn saa du am dépense man mii la njëkk a yóbbu daaree Fass Touré ci sëñ Abdoulaye Touré en 1992 moom moo ko defee alquranul karim ginnaaw bi ñeent ci ak njabootam mu jël leen jox leen oustaz Mouhamed Baara Ñeng ñoom it ñu mokkale foofu alquran ginnaaw bi ñenn mu jël leen jox leen oustaz Alpha Bari Kër Massar ñu mokkale foofu alquran ak yeneen daar yu fa sante ko ba ci daara yaay ji Binta Thiaw am na suñu yeneen rakku jigéen jox na foofu la mokkale alquran boobu nag période bi muy def loolu mi ngi am xalaatu taxawal daar yu mel noonu ci canaba yàgg na am xalaat bi am ñum ci waxtaanal am na sax ñeenti nit ñoo xamante nii seenu njaboot ak man ñoo bokk nekk faas daana waxtaan ak ñoom ci njaboot gi bu ñibbi seen nañ ut teene buñ bokk jox leen ko ñu defal fa daara ju mel ni daaray faas waaye xalaat yooyu antuwul woon teene ba sax jotoon nañ ko am antuwul joxe na xalaat ci canaba bopp bu fi yeewoo bu nekk na joxe 100 francs ñu ut ba yàlla bu mag ta tabax ko daara internat suñ njaboot gi jàng ji bu ñëwee jàngal seen rek xalaat boobu yàgg naa véhiculé cim xelam wax koy kilifa yi waaye yàlla dogalit xalaat na bu jëmul ba jëmmi jamono nag mu ne na ut teene boo xamante nii moom moo koy utal boppam def ko waqfu jéem faa réaliser xalaatam boobu moom ak képp koo xamante ni yàlla dogal na mu ànd ceeg moom yàlla dogal muy lijjanti loolu xawoon naa jafe euh, wax dëgg yàlla ak ni dëkk bi doon màggee euh, mu mujj bëggoon ko def ci këram waaye période boobu la yàlla dogal barab bi ñu nekk sunu jenn baay ju ko moomun ju tudd Alaaji Ahmed Diop euh, may ko genn wàllu barab bi pour mu def ko daara loolu mu ngi nekk a à 2002 Euh, comme que góor gi it bëggoon na lu xaw a gën a yaatu genn wàllu barab bi ci la waxtaan ak moom am beneen barab boo xam ne soriwut daara ji borom da ko doon euh, wecceeku góor gi wecceeku barab booba jox ko samba baay El Hadj Ahmed Diop mu jox ko beneen genn wàll gi mu nekk daara ji ni nga ko gisee di 40 bet ci côté bu nekk. ba mu ko amee ci 2002 ci la tàmbalee dox def yitte yi jëmmal fi dara yitte ji mi ngi ko tàmbalee ci boppam ak njabootam. ñun ca biir kër ga ñun ak moom dañoo amoon benn kees bu ñu tuddoon kees sociale képp ku nekk ci kër gi boo dee gone nga ah di nga ci dugal ñaar fukk par semaine mag ñeek moom ak mag ñi ku nekk mille francs ba loo man kees googu njaboot gi dajaleñ ci 3 millions yoo xamante nii daanaka mooy cosaanul euh, daara ji waaye tamit mu di ko wax ay am di jaam ak i xaritam ak yu ni demee Serigne Mouhamadou Mansour Sy euh, rahimahullah xalif général bu ti bu Tiwaawan ginnaaw li ci njaboot gi def moom mooy ki ci njëkk a def xaalisam mu mat un million. bi muy wax daara ji dañ ni kii lan lay wax mu daan wax naan Baye Mor jafe fii la amee amul fële waaye xoolal daara ji oustaz Aliou nga doon imaginer projet ay millions yu bari comme moom jàng ak jàngale la gëm yàlla tàggatal ko ay nit ñuy jóge ba Thiès ba Dakar di jàng si ci moom. am benn waay boo xam bi mu ñëwee di jàng si kooku moo fi indi koo xam bi mu gisee li oustaz bëgg. la waa ji xam ni ku demul tool ku nekk war ngaa mën a joxe nag ndoxum tool kii xam ne jàngalekat international la wër ta mën a bëgg fu mu toog di jàngale ca man ma yor ko man koo tabaxal ay étage yu mu jàngale ba par ma koy munu maa jàngale mais man maa joxe ndoxum tool comme dem ma tool waa ji ñëw commencé projet bi ba alhamdulilah bu ngeen demee di ngeen xam ne ànd ak yàlla rek moom ma wóor oustaz ku wéer woon ci boromam la kooku moo jàppalanteeg moom ba bâtiment yi nekk ci daara yëpp mbokk moom moo ko taxawal ci dundu góor gi yàlla dogal bi mu ko taxawalee ba li ñuy tuddee wàllu maçon dem ci quatre-vingt pour cent euh, góor gi génn àdduna Moustapha it am ci yeneen yu mu nekkoon tax liggéey bi taxaw 2011 bi ñu ñëwee tamit ñun wax dëgg yàlla mbir mi xawoon naa jafe tuuti ndax góor gi mu amee teere bi ba bi ñu koy tàmbali ak mbokk moomu daanaka def na lu mat juróom-ñetti at ndax 2002 la ko am 2009 la ñu tàmbali liggéey bi tanem gu mat xam yàlla moo ko wax no se ko jabraila andi ko yow ahmadoo ko taawu ca kaw moo taxit ko xam fa mu aw xam ne yàlla sàmm na ko noon ya ko xeex anañu ñépp a fuuti tey banañu xasuuray ginnaaw anañu sun xamoon mbiram jege ko jafe-jafe yi bëri woon na trop nag wante léegi macha allah oustaz Alioune Guèye mébétam yegg na ba lépp mat na daara jaa ngi nii daanaka li ñu séntu ci daara yëpp mi ngi ci. bi mu gaañoo 2011 2011 ba 2012 di waaj a jeex def nañuy pexe fuñ jàpp ne buñ fa duggee am pexe yu àggale barab bi jéem nañ faa dugg ba sol sunu daal sax génn réew mi waaye. yàlla mel ni rek dañu dem leen dem leen toog yi liggéey yi te xaar ñu mujj ñëw sëñ Abdou Sura wax ma benn baat boo xam ni mooy baat bi ñu chargé ba tax bañ faa jóge rek ñëw tàmbali ci barab bi bi ma ko waxee situation barab beeg ni mu mel jàpp ni damaa war a xaar ba mu àgg ma doog a door dana ma Mouhamed demal jàngale ji daara tàmbale na ci mbaar ak ci suufu garab te yow lii nga ma wax ni ay bâtiment nga fa daane ma boo loolu faas la ma ko waxee mu boo jógee fii boo wàccee cana ba jawalil ca barab ba julli fa ñaari rakka ñaan sa borom subhanahu wa taala te tàmbalee liggéey koñ bi wéetoon na euh, diggante ñaari bâtiment yi amuloon lu ko taqale bay am bunt maam fu waa jigwaan day dugg oto bu ñëwee day dugg sareet bu ñëwee euh, léeg-léeg mba mbaam yi ci guddi gi fii lañuy ñuy fanaan ci ëtt bi amul bunt bâtiment bi yaatoon na yaatu boo xam ne mënoo cee def lu defandoo lu kii benn néeg ñaar ngay defar tàmbali ci yaa ca des léeg nga kii ba saak ak kañ a génn mbëkk ab bunt <laughs> situation boobu lañ fi doore situation boobu lañ fi doore ak ñetti donga Oustaz Cheikh Abdoul Hamdou Diouf rahimahullah keroog bi ñu ne dañuy doo daal ci dimanche dañoo xëy lënd mu yónnee ma ñaari doomam sa baay Alaaji Ahmed Diop mi nga xam ne moom amoon barab bi ma tudd ko sànq moom it yónnee mu doom ñu tàmbaleeg ñoom noonu ma bu ñu xëyee xëyeeg ñoom buñ gontoog gontoog ñoom liggéey bi mi ngi dox bu baax bu baax man ma ngi naan est-ce que sa bu fi nekkoon sax liggéey bi na doxee nii daara dina doxee nii macha allah doom ji di mohammed wax dëgg yàlla mat na mat na bàyyam sëg wax dëgg yàlla fa bàyyam taxawoon yëpp mu ngi fay taxaw wax dëgg yàlla dëgg yàlla bu wax waxee yàlla taxaw na kër gi taxaw na daara je. fi mu ne nii may wax ak yow dong yaa ngi ci téeméer ak juróom fukk. ji góor ñi ñu ngi toll ci téeméer ak fukk ak ñeent euh, la ca topp mooy jigéen ñi waaye mat na téeméer ak juróom fukki donga fi ni ne donc ci noonu lañ nekkee ak ñoom ñun ñu nekkoon fi di jàppalante ñoom ba at moom a jeex mooy euh, fin 2012 2013 euh, bi ñuy dugg 2014 muy yokk ba ñu am cinq donga wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee ba 2015 nag yàlla dogal donga yi ñu tàmbaleeloon am ñu ci mokkal alquran Euh, ci la nit ñi doog a comprendre li ñu li ñu bëgg ak fañ bëgg jëm ñaar ñoo njëkk mokal mokkal ci 2015 bi ñaar ñoo njëkk mokal mokkal bi ñu demee 2016 yeneen ñaar mokkalaat 2017 noonu 2018 nag lañ am quatre juróom euh, ñeent ñu mokkal fi mu ne nii euh, ci 2019 2019 2020 bi ñu ngi yaakaar incha allahu juróom-ñaari xal yoo xam ne ñu bees la ñuy doon mokal gi may wax nag mooy mokkal gu bees gi ñi nga xam ni dañoo tàmbalee fatiha wàcc alquran di ko doog a mokkal mokkal gu bees waaye diggante bi am na ñeneen ñoo xamante ni fi lañ mokkale alquran wala ci yeneen i daara ñëw mokkalaat fi yeneen riwaaye ci alquran lu mel ni riwaayatu Shaban Asim di ñaareelu riwaaye ci qiraatu Asim wala riwaayatu Qaalun an Naafi wala riwaayatu Warsh ak yeneen riwaay yi nga xamante ni jot naa ak si ci daara ñu ñu ciy jàppalanteeg donga yi. bala noo tàmbali waxtaan wi ngi leen di ñaan ci seen teraanga ñu ngi leen di ñaan ci seen teranga yeen jigen ni ngeen defaraat seeni muraay lu ma di leen ko ñaan mooy bëgg leen bëggal leen li ma bëggal sama bopp te mooy nu am terangay àddina ak àllaaxira nu ñibbi ca kër ga nu dëkkoon te sunu noon génne nu ca te mooy aljana aljana la sunu maam dëkkoon adama ak awa benn bul def bu ko yàlla waxoon sunu noon muy iblis fexe ba mu def ko ci leen ñëwee fi ci àddina ñu nu war a ñibbiwaat sunu kër waaye moom iblis da leen ci àll mu giñ ci kanam borom ci mag boog borom bi dina giñ ni kii tax na yéen ñu dàq ma ma génne ko àjjana dinaa fekk ay sëtam yu ci ëpp lu dul sa jaam yoo xam ne yaa leen jagleel sa bopp waaye ñëpp dinaa leen yóbbu safara. la maison du Coran mi ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne rek ñu ngi tàggoog yéen fii wante ci fan yi di ñëw rek dinañ ñëwaat ci gëstu yi dem seetiwaat beneen kàngam boo xam ne bii. addinaam yépp ko doon jàngale alxuraan ak xam-xam diine lislaam la maison du la suñu yitte mooy alxuraan ak lépp lu aju ci weer